mais xam nga ñun côté bi nu dëkkee muy banlieue bi. Mhm. dafay léeg-léeg nga gis koo xamante ne nii day gas foos bàyyi ko noonu te xam ñaata xale ñooy nekk ci koñ bi. léeg-léeg silmaxa nekk ci koñ bi léegi doo mën booy jàll. faaw ñu dimbale mooy fosse perdue yi am ne amul couvert tey jii. mais xale boobu ni mu ko noonu tamit yoon dina ko jàpp. dina ko jàpp parce que déjà fosse si mbedd sax dañu koy tere. léegi nag moom mi nga mhm. xam ne moo gas fosse bi ba loolu am Euh, dinañ ko teg loxo laaj ko lan moo tax mu gas foos bi wala lan moo tax. tëj borom kër dafa mel ne seen kër la sax nag ñoom. parce que si buntu kër gi la nekk. Uh-huh. Ah, kon kay comme ñoom la rek. ñoom la <laughs> seen biir mais ba tey ba tey yoon dina ko lijjanti parce que affaire bi comme que ñoom ñoom. ba ñuy wër xale bi bàyyi wuñu xel que ni sax fosse baa ci mën na cee nekk mais koo xam ne dafa doon romb di dem liggéey moo moo seetlu xale bi di fiyee ci biir fosse bi si kaw xam nga dalay leen ne xale ba yàgg na fa amaana a gis du demee nii wala du si ñàkk bakkanam ndeysaan nag yooyu yëpp di ci am mooy sa doom da nga koy téye da ngay xam ne sa doom la yaa ko mm-hmm. jur ka ëmb ëmb juróom-ñeenti weer daa métti euh, fukkeel ba ñëw xaw laa gaañ mm-hmm. juróom-ñetti weer juróom-ñeenteel ba ñëw xaw laa gaañ nga daj ci coono mu metti di nàmpal di nax guddi gi muy jooy kii nii lu muy wax papaam mm-hmm. lu muy wax papaam te dina am bu doon papa yoo xam ne nag amuñu compréhension wala dañoo bëgg doom bu ñëwee tey moom kër ga du lijjanti daj bi mais dina lijjanti fan la la faw nga. jamono ji dañoo dem ba xaalis moom nit ñi. xam nga xaalis yow jor faw nga gore mën koo mën koo mën koo mën koo maîtriser. Mhm. nga ko ak nga ñàkk ko maanaam faw nga nekk koo xamante ni ku doylu nga. Mm, dëgg la gis nga euh, euh, euh, loolu mu doon def noonu dem di wër di jëli xaalis bi ba lii am. Mhm. loolu tardé wul maanaam nekk loo xamante ni lu tardif la maanaam après mën naa dem. Mm. mën na def liggéeyam ba pare voilà mën na occuper doomam occupeel sa doom quoi vraiment ba xale bi parce que. tey li tax yàlla jox la xale bi. ah tey yow yàlla yàlla la ko may am na ñoo xam ne bu ñu ko amoon dañuy fecc. Mhm. yow yàlla yow la ko jox. léegi yow mi nga xamante ni yow yàlla yow la jox doom ji mais gérer sa doom quoi téye ko nin la téewee ba nga màgg ba jur. parce que moom dañ koo téye toppatoo ko ba mu màgg ba jur léegi nag. Mhm. ay génnal dem foo yeeg demal ci sa moroom yeeg. bàyyil fu ay mag toog nga toog fa nga mais xale daa war a xale bu ndaw daa war a toog fu ay mag di toog parce que moo raam xel mu mën cee jariñu mais mhm. xale bu ñëw ci yow nga dàq ko damaa bëgg a nelaw kii daf maa sonal mel ni juróo ko est-ce que boo sonaloon sa yaay di nga toll nii nga toll la doo toll nii voilà léegi nag def ba ñu màgg nañ léegi yow màgg nga ba màgg nga bay lijjanti ji dërëm mhm. mais bootal sa doom boot bi ngay boot sa doom deewoo du la rey du la sonal du la dara parce que génnoo koñ bi mhm. ba pare ku ko laal nga ne ko bu laal sama doom. bul laal léegi yow boo ko waree occupé doo ko occupé léegi mu dem dugg ci poste boo xam ne poste fertile la léegi anam. ñàkk ci léegi looy wax. Mhm. téewoo ko. te moo tax moo tax tubaab yi benn côté ci wàllu xale ñoom xale lañ gën a respecté ka mag. dañ gën a fonk ka mag mhm. parce que ñoom dañuy xam ni suba xale bi mën na doon dara. Mhm. mais tey ñun dañuy jël xale wàcc jël ko teg ko nële du nu du nu xam suba xale bi ba pare Sénégal tàmm nañ benn affaire famille yi si bëri ñi am doom tàmm nañ benn affaire tey nga gis xale di fo ci benn affaire mu leer ni kii moom lii la bëgg nga naan ko lii de doo ko def surtout maa ngay football. Mhm. wala ngay def benn sport wala ngay def benn la tere lenn loo xam ne amaana sa vie moo ngi ci voilà parce mhm. loolu moom moo la mën a moo a may léegi nag tubaab day teg ay fowukaay yu bëri ci kër gi xool xale bi ci bi mu gën a focaliser wu mhm. mu jël boobu noonu nag léegi nag daan ni kaay kii lii la bëgg léegi nag loolu mu bëgg noonu nag dala ci teete di la ci nàmpal di la ci jàngal ba nga réussir ñoom li ngay fooye boo màggee sax moom ngay def moom ngay def léegi nag fii ngay fooye benn affaire ñu naan la lii doo ko def ndax waroo ko def ndax du sa xeet patati patata mel ni mel ni yàlla fi mu moom moom moom moom moom li muy programme yow yàlla de yëf yu yàlla ngay ngay kii mais nag yooyu yëpp mhm. jàpp sa doom yar ko def ko ci nàmpatal ko mhm. l'amour maternel amour amour amour maternel maternel da ah. ngay dee loolu noonu loolu noonu dafa baax parce que xamalan moo tax tey soo jëlee sa doom nàmpatal ko ci sa bopp ba ba nga xamante ni nii miin na la du dem fenn ci sa côté rek lay toog mhm. léegi nag yooyu noonu bu fekkee nag yow da nga bëgg dërëm bëgg pro bëgg tuur mhm. bëgg dërëm bëgg génn ci mbedd mi di kaa léegi sa doom ñooy sa xale yi ñooy ñooy ñooy dugg ci foos yeeg di dugg ci kàmb yeeg oto yi di leen bëkk quoi qu'on puisse dire daal ñun leen rek lañ leen di wax ci seen doom yi xëcc seen yi ni ko foo nekk te xam ne jamono ji dëkk bi yàqu na même bu dul foos mën na génn ñu sànni ko tey ñu sacrifier ko yóbbu ko fee hmm. doo xam yow fan lay mujjoo xale moomin la xale moomin la xamul dara laay dañuy dem ci li nga xam ne rek moo di wàllum people gannaaw nag ba ki nga xam ne rek moo di Wally Seck génnee li nga xam ne moo di album 15